ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nu yotti nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ koy defee saa su ñu ngi fii ci stade Caroline Faye bu Mbour ki ñu fi woo di Yaxya Diop Yékini njiital Faata production mbokk yi moo ñu fi woo lutte simple la lutte sans frappe teg fi mise bi 5 la mbokk yi ndaanaan yëpp ñu ngi fiy dajaloo gis naa fi ki nga xamante ni mooy Goro Sock gis naa fi Ada Fass gis naa si Emine François Gomis kaay pakala bu mbuur a ngi noonu hey làmb am na kuy dugg ña ngay dugg ndeysaan am na mbër buy ñëw kii assurance la assurance a ngi noonu ndeysaan pakala a ngi noonu ci ginnaaw assurance assurance dugg coow li adama kaay adama kaay pakala a ngi noonu Ndeysaan fii la fekk baax ci Mbour moom Pakala grand champion asira mu ngi koy wër wërale na ba ca bopp ba ma ngay léemu tey assurance sànni na sànniwaat na sànniwaat na ñett lu muy def Senghor ba juble na ko ci xiblay yi ndeysaan dugg na ci compétition ba assurance bu Mbour a ngi noonu biir di ñëw maa ngi koy séen Mamady Ndiaye la <laughs> ay bisu yax ya Diop bi mbokk ku ko ci Wassare Lamb dëkk sa bënn la saaj ba réer Adama kaay kaay Adama Mamady ngi noonu ndeysaan ma nga ca porte ba taxaw moom Mamady Ndiaye Adama Mamady ngi noonu ndeysaan seen naa fi sele mele sele ngi ne ci ginnaaw Mamadi ah lamba ji dina neex oh champion yëpp dinañ dugg si waaye cey làmb foofu góor la suñu sport national la làmba neex Mamadi dugg si na ndeysaan léemu na xoolal ma ngemb la cey dugg na ndeysaan ma nga mel ni ku waajut bëre sax de moom Mamady Ndiaye Adama Sele melee ngi noonu grand champion keroog ñëw na ci arène nationale 10 millions yo booy faye ko éliminé Sele aka mën a bëre noonu di dugg day saan sele ngay dugg sele mele dugg na grand champion sele mele dugg na day Ndeysaan Adama sele ngi noonu Ndeysaan ak Mayo Sadio Mané bi maa ngi lay ziar rek. nga ñëw ci compétition bi dugg si. waaw wut si rek waaw. sol sama Sadio Mané. man kooku laa gëm waaw waaw. nee na Sadio Mané la gëm. Baye Fall bi maa lay fay. naka la. nice. ndam neex na de. ah non ñun mooy loolu lii ñu xam ni simple. barke borom Touba. nga jugee yaa Ada Fass tey ñu gisaat la fii ci Mbour. lan la yaa bébé bis. waaw ah, ñun lii lay xam dañuy compétir rek. waaw compétir na quoi. Ada Fass a ngi noonu mbokk yi xale la waaye macha allah am na jom bokk na ci làmba Adama kaay ay Papa Gueye muuma noonu muuma la boo xamante ni macha day ñëw ci compétition bi di yëngu di wane boppam xale la boo xamante ne xale bu gëm boppam la maa lay jaar yaa ngi jàmm yaa muuma la. waaye gis nga noonu la mënee bëre noonu la déggee Adama jël ko Papa Gueye muuma la ndeysaan jëlal dafa dégg kaay Adama kaay ndeysaan daa dégg ndeysaan bàkku na Adama yaa ma gën a xam Emine François Gomis a ngi noonu compétition bi mu ñëwee ba léegi ñaari compétition la ñaari yëpp moo ko jël barki démb mook Boy Faye barkaati démb final ba moom ak seex Tidiane ñaa moo ko jël Franc maa lay nuyu mbër maa lay siyaar ndeysaan cey làmb naka la nice après après goog loolu la ci loo naa sant yàlla rek maa yaa ngi am jàmm waaw maa ngi am bu baax na ñëw ci compétition bi tey loo yëg comme d'habitude rek kontaan bi ñu dugg see xam parce que ñun buñ déggante nii rek suñu yaram day daw yaa ma gën a xam ak Serigne Touba. Medina ñëw fii pour compétition. waa gis nga pour jël drapeau bi rek ñibeeg moom Medina parce que loolu lañ may xaaree te tam nañ ko si man waaw. ak waa Medina R ña waa yéen Ndengaleer waa Rue 31 waa Ndengaleer xam nga. maay bëggee ñëpp waa Réfane bàyyi ma kenn. wax dëgg yàlla. ñi ngi ciy bàyyi xel bu baax parce que li ñuy def am na solo xam nga ñi ngi génn seen lutteurs yi xam nga di leen wane xam nga seen seen seen seen visage xam nga wër àdduna bépp daal ñi ngi leen di ñaanal ca kaw ca kanam rek lu ngeen bëgg yéen a ko xam yàlla nañ ko yàlla defal. jaajëf Sam. bëgg naa la doom dinaa fa ñëw jël si. di jeex nga dugg si ci compétition bi loo yëg. waaw sant yàlla rek maa ngi sama jàmm yaram ah. di ñaan yàlla yàlla may ma ma jël euh, drapeau bi si daraja Muhammad sallallahu alayhi wasallam Sélé ah. ñëpp xam nañ ni Sélé Mélé grand champion la comme commission bu commencé ba léegi jël nga. waaw jël na parce que temps yi dama nekkoon si tawat quoi moo tax semaine yii yëpp dégguñu ma woon mais yàlla def na xam nga alhamdulilah quoi waaw. loolu war a 5 millions yi arène Iba Mar Diop gisuñu la. waaw looloo tax parce que deux semaines yëpp génn ma dama tëddoon mais sant yàlla fu mu ne nii waaw. mais yaa ngi am tawfeex. waaw kay. waaw waaw jaajëf. kaay fii kaay fii ndeysaan assurance a ngi noonu assurance maa ngi lay nuyu. bëgg naa la sama waa ji. ndeysaan nga ñëw ci compétition bi. participer loo yëg. waaw sant yàlla rek. ñëw liggéey si rek la. amul changement amul leneen comme ni nga ñëwee liggéey si noonu la ñëwee si rek xam nga wasaare ndaanaan la assurance ndaanaan la. compétition bi dina yomb tey. non warta mën a yomb ndax gis naa fi ay ndaanaan te loolu mooy kii bi mais yàlla ñu ko borom may rek loolu rek moo Gora Sock Gora maa lay nuyu. maa lay fay. nga ñëw tey ci compétition bi participer waat comme ni nga ko doon defee loo yëg. waaw am contentement rek xam ne suñu liggéey suñu métier la quoi bay suñu waar rek. yeah. compétition bi tey dina yomb. non du yomb tey moom du yomb moom. gis nga ndaanaan yëpp a ngi fi. non tey du yomb laa du yomb incha kontaan Kaaw Cissé numéro 2 bu Dalif. oui numéro 2 bu Dalif waar. maa lay ziar. oui maa lay bëgg bu bi amoon arène nationale yaa éliminé woon Général Malika tey ñu gisaat la fi mais keroog euh, Iba Mar Diop gisuñu loolu waral lool. donc nag mooy ki moo doon bëre mooy Kaaw Gourdin moo doon bëre quoi mooy grand combat moo tax ñëw ma man tey man maa ñaan yàlla tey yàlla ma yàlla mooy suturaal si kàttanu yàlla. tey dina yomb. incha bu neexee yàlla. gis nga champion yi fi daje. ah dara duñ dërëm billahi. jaajëf jaajëf. Africa maa lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay di la taw tawfeex bu baax a baax. tey nga ñëw ci compétition bi. ban yëg-yëg nga ci am. waaw tey ma ñëw mbuur pour compétition ñun lii lañu xam. waaw man damay tëgg làmb en même temps damay bëre waa chaque fan yëpp maa ngi ci final yi dama ñëw fii nii ñu ne poids léger dafa fees ma daal bind ci luur bi. waaw ah, pour jël ko incha allah waaw su neexee yàlla. foo jugee. ah fan nga jugee ban dëkk. Diourbel Diourbel laa jógee. dëkk sëñ Basirou. dëkku. sëñ Basirou xam nga. sëñ Basirou waaw vraiment dëkku sëñ dëkku sëñ bu mag bi. waaw di ñaan daal waa Njaareem yëpp daal ñu jàppale ñaanal ñu suñ suñ borom defal ñu ndam ñu jël laamu ji incha allah mbudaay di waa mbudaay nag bu baax a baax foofu laa jógee waaw jaajëf. jaajëf mbër. xoolal ma Mamadou Ndiaye fi mu toog mu nga mel ni ku bokkul ci màggatum guddi la ndeysaan li wolof naan màggatum bukki képp ko dàq sa gétt bu génnee nelaw day ñëwaat looloo ko dal barki démb dafa ñëw stade Diom Iba Mar Diop ñàkk ñëw arène nationale ñàkk teewul tey mbuur ñëw na mais beneen changement la indi ñëw ci siège yi toog toogul ci ci mekaayam de toog fi kenn toogul ama xool leen Mamady Ndiaye Adama Zoumel jël lool xoolal Mamady cey làmb Adama Kaat Mamady maa lay nuyu. maa ngi lay fay. nakay tey. sant yàlla bu wér. tey nga ñëw fii ci journée Yaxya Diop Yékini sa mag sa grand frère sa lépp loo yëg. waaw kontaan rek. kontaan rek di ñaan yàlla yàlla may ma ndam quoi waaw. compétition bi gis nga fi luur yi bi nga ñëwee ba léegi ci compétition bi gisaguñu Mamady Ndiaye génn lan la. waaw maa ngi génn de. maa ngi de waaw yàlla moo ma mayagul rek mais maa ngi ko quoi waaw. bëre dóor bi bi ñu ngi taaw rek ñu ngi daas fanaanal di xaar combat rek promoteur yi la ñuy déglu rek ñu ngi dox benn combat mais sotteegul ko waa. sa combat yaakaar. bon amaguma adversaire dañ may utal adversaire waaw mais sotteegul ko waa xam nga gars yi ku ñu wax Mamady rek day bañ loolu la ko waa. non yàlla moo ko def. yàlla def loolu. nekk leen di kaw ci kanam rek. Adama kaay tey le grand Malick Thiandoum ma ngi noonu Malick ngay wax ak moom ma ngay saafanteeg Yaxya Diop ndeysaan l'ancien roi des arènes l'empereur de l'arène Ndeysaan Yaxya Diop moom mi nga xamante ni Ndeysaan cey Yaxya Ndeysaan Yaxya Diop a ngi noonu sama xel dem na ci tàkkusaan ba mu doon bëreeg baabooy Ndeysaan sama xel dem na ci bésam ba tàkkusaanam ba stade Léopold Sédar Senghor moom Moustapha Gueye stade Léopold Sédar Senghor sama xel dem na Ndeysaan takkusaanam ba moom ak Bombardier tey làmb léegi génn na ci làmb waaye waxam jugut ci làmb membre la ci CNG de lutte bi tey mu organiser bis bu mel nii tegal xale yi juróomi million fii ci stade Caroline Faye bu Mbour moom Yaxya Diop Adama jël ko mu ngi noonu di ñëw dox génn na ci làmb waaye loxoom génn ci làmb ngemb li rek la bàyyi ci biti waaye ba tey cofeel gi mu am ci làmb moo waral mu nekkit ndeysaan Yaxya nga ànd bis bi tey looy bés bi maa ngi lay nuyu merci noonu léegi kii borom bis bi ndeysaan bis du tuuti borom lay tollool Adama tàllal na loxo ba nee na ndànk rek nii la ko loxo ba jóg na ndeysaan cey làmb bëre ba bàyyi bëre sa loxo nekkaat ci biir làmb ba tey ngay tëggi làmb xale yi di bëre nga nekk ci CNG bi di defar di nas ak a nocc kookoy Kor Sabel Yaxya Jóob Yékini ndeysaan Adama kaay Adama kaay fay xale bi ndeysaan macha allah barki démb ñu ngi dégg sa album. exactement ndeysaan son yu neex. waay jërëjëf waay ñu gëj laa gis ci réew mi foo ne. dëgg la boobu dañu lëlu woon di liggéey rek. léegi nag lépp noppi na moo tax nu ñëw rek fas yéene yëngal dëkk bi incha allah. tey nga ñëw ci làmb ji loo yëg. waaw mbégte gu rëy ndaxte euh, ki nga xam ne mooy yax Yaxya Diop ni référence la ci Sénégal yëpp donc bu nu nee tey moo moomee. du nu mën a def lu dul kontaan ci waaye nag ñu ànd seeg sunu papa monsieur le maire Gorgui Ciss Gorgui Ciss moom lépp lu mu moome rek ñun dañu am pour teew ca ndaxte teewe na ndaw ñi jàppale na ndaw ñi te yéeneem rafet na ci Sénégal di ko ñaanal yàlla rek te fas yéene ànd ak moom ba géej gi fer. Abdoul Guité am nga mbër. oh waaw nag boo njabootee ñëpp nag da ngay tëdd njaaxaanaay waaye nag ah ci biir xool bi nag dana am ku fa ne waaye dama koy noppiwaale rek. yaa ngi waajal bis bu rëy grand théâtre national. ñu di ko dégg loo ciy waaj ak yan disposition nga ci. waaw incha allah le 20 juin lay doon 2020 ñu fas yéene def le grand rendez des arts ci biir grand théâtre bu boobaa nag Sénégal yëpp mooy doon. Euh, mooy moom marqué teewaayam ci wàllu culture ci wàllu aada ak cosaan waaye tamit ci li nga xam ni moom la seen doom di tëju di liggéey ñu bëgg leen ko wan incha allah rabbi bés boobu. jërëjëf ñu ngi lay jàpp ñoo ngi leen di sant. jërëjëf Abdou xale la boo xamante ni bàyyi leen ko xel dóor dóoraat la nekk Dakar la jóge xale la boo xamante ni bàyyi leen ko xel ci wàllu bëre dóor waaye bàyyi leen ko xel ci làmb bëre simple compétition bu am ma nga fay dem moom booy Baol xale la boo xamante ni ku ko jàppale ci làmb mu dem champion la dina tëjub làmb kii xale la boo xamante ni macha allah Adama dafa mën a bëre. moo ni kenn du ko présenté ci làmb muy Malick Thiandoum ngeen xam ko ci ITV Malick maa ngi lay nuyu mais maa ngi lay euh, fay di nuyu ñëpp ñi nga xam ne euh, ay euh, soppe lañu di nuyu également internet yi nga xam ne wasaare lamb dañu koy topp ndax liggéey bu rafet bi ngeen di def jëmale ko ci li nga xam ne ñoo ko moom jëgaani wuñu ko muy suñu aada ak suñu cosaan li ngeen di def moo koy dundal ñu leen di encouragé ay ndaw ngeen mais fi ngeen teg seen tànk bu leen ko teggi incha allah. jërëjëf Malick tey ñu gis la fii ci journée yi Yaxya Yékini muy Faata production tey nga ñëw fi sa relation ak Yékini xam naa ne liggéey moo la fi indi mais seen relation yéen ñaar. waaw xam nga Yaxya carrière am dama cee dafa tombé ak man may émerger ci wàllu reportage lamb. ba tax na combat am yu bëri combat chocam yu bëri man maa ko reporté am na lu bëri lu nga xam ne fekke naa ko ci ay jëfam ci 15 ans d'invincibilité yi mu def ba ci fin de règne lépp dama ko fekke mu am nag lu nga xam ne particulièrement dafa dox sama diggante ak moom muy taalibe cheikh may taalibe cheikh loolu boole ñu Yaxya du jaar ci sama tur sama sëriñ rek la may wax ak lu séeréer xam Yaxya carrière am ak sama carrière ni mu àndee fu nekk ñu ànd fa Joal Basul Basar Marfa Fako Marloj Marsul fu ne ànd nañu fa maak moom kon tey bu demee ba tekki ngembam ni damay jàppale xale yi organiser lamb ñun yoon la ñu gunge ko ci loolu parce que lamb rek moo ñu ñor lamb rek moo ñu saf rawatina mu def ko mbuur di sama dëkk tamit mais également tout ko ku nga xam ne sama mbokk la muy le professeur Gorgui Ciss donc l'un dans l'autre ma présence s'explique na moom Yaxya Diop njiital Faata production ma nga noonu ndeysaan kon xabal ndeysaan Thank you. aada la ak cosaan